bilaay soxna si li nga wax ànd naa ca yow loxo bi bañ ba mu tàkkee ca ca ca cabine ba rek dañ ko waroon indi jaasi rek jeggale jekkale ko man la kii bu ma ta jàkkaar la woon ak moom rek ci corniche bi dinaa ko wan naka la dinaa ko dóor mu wàcc ndax nit du bone nii waaye maretu liggéey ndeyam dina ko wallu ak liggéey goroom maar nag day góor rek dañ ko jëkk ci sëriñ waaye sëriñ lu mu la may tey moo ko mën a nangu bu buy gàllaaj bay màggat rek yëf yi di éclaté kër gi moo koy moom moo koy moom incha allah ci daraje sëñ Babacar Si moo koy moom. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel yéen ñëpp yéen ñu si groupe maa ngi doon déglu fële nag seen waxtaan bi si wàllu kër gi ñu war a jaay waaye kër bi ñu war a jaay noonu de xam naa ne soxna Batoor moom waru ko woon a jënd waaw. soxna Badoor kam ka nga xam ne moom moom ñoo nekk kooku daf ko war a triage xaalisam bi su ko kooku yi rek ah, bii nga si boppam far ba ko bëggoon a waroon a takk man de su ma xalaat bu gàtt kooku laa bëgg man mu jënd kër gi bu ko jëndee may ko yaay biige su boobaa ah, série bi dana gën a neex trop waaw man de nii laa xalaatee série bi comme ni muy demee waaw waaye soxna Badara ka muy jëflanteeg si wàllu xaalis kooku daf ko war a trier bu ko kooku trier su boobaa biige si boppam ka ko bëggoon a takk kooku jënd kër gi may ko yaayi biige wala benn doomi marbale jënd kër gi mu mujj moom kër gi ñaar gi daal ñoo war a jënd kër gi benn nit jënd ko may ko yaay biige wala benn doomi maar bi si boppam jënd ko waaye soxna Bator moom hmm, séeréer bi su jëndee kër gi rek séeréer bi dina dina dina gën a gudd de woon man daal sama xalaat bu gàtt xale bu góor bi nga xam ne moom ak euh, soxna Bator ñoo def dil bi pour jënd kër gi kooku daal su ko triant woon lekk xaalis bi yëpp wala jënd kër gi ba pare daw xaalis bi bañ koo jaayat soxna Bator defe naa ne heure boobu lay série bi di gën a neex wala faru biige bi jënd kër gi may ko biige wala jox ko yaayu biige wala doomi maarloo bu góor bi jënd kër gi loolu daal laa xam ne bu amoon moom série bi dina gën a neex ma ko série bi dina gën a neex waaw fu nii nag moom ah yëf daal jaxasoo na rek ma ko jaxasoo na rek. série bi daal nu ma ko gisee noonu daal laa ko gën a jàngatee gannaaw si biir série bi euh, fari biige bi si boppam mayoon na yaayu biige. béewu màkk ba pare sëy bi amut ñu delloo ko béewu màkk boobu dafa war a ñëw nekk kayiti kër waaw sëriñ bi daal xam naa ne su ja su demee woon noonu dina neex lool dina neex lool leel lool sax waaw waaye daal nañ nañ dem ba xam ñu xool nu muy demee. ngeen doon jàmm ak salaam ci jàngat euh, def ci série cinquante waaw ndax jotuñu ko woon seetaan démb tey lañ ko suivre rek ci YouTube bi comme guddi gi aussi duma am temps pour suivre ko télévision waaw jàngat bi ma ci am moom mooy que ne mbiri kër gi moom bu soxna Batoor moom client bu jëndee kër bi ah soxna Mariétou ak doomam dinañ gën a sonn lii doon avantage bi daal comme léegi ustaas bi ñëw na wax na leen li mu leen war a wax léegi jaayee fi sës avantage bi daal mooy que waa ji ngoro bii jënd kër gi mu ko defee dinañu am opportunité bi ñuy desee ci kër gi mais bu tegoo ci loxo soxna ba tey moom ñu victoire dootul am kooku moom lu leer la waaw maa ngi nuyu ñëpp nag maa ngi ziar ñëpp si suuf ba léegi. ñun nag ay gan yu bees lañ ñu ngi doog a dugg ci groupe bi. groupe bi moom neex nañu lool nag série bi tamit moom macha allah neex nañu lool man moom dama koy suivre bu baax sax waaw tànk euh, jeexul daal du ma reer moom il faut mu jeex ba pare ma doog a reer série bu neex la waaye sama xalaat nag mooy faru biige bi daal moo war a jënd kër gi mbaa doomu maarloo bi soxna moom dañ ko war a triande waaw ki muy jëndloo kër gi da ko war a triande daal. paru biige bi jënd ko may ko biige mbaa doomu maarloo man loolu mooy sama xalaat série bi moom neex na trop moom neex na lool nag macha allah ok nekk leen ci jàmm groupe bi tamit macha allah neex na trop. Sénégal leen def maa yéen a ngi am jàmm sama commentaire nag ci kii ci série bi mooy faru biige bi laa bëgg mu jënd kër gi wala doomu maarlu bi jënd ko su ko defee soxna buto day daal di ñàkk loolu daal laa ci ma nag waaw jënd kër gi rek soxna buto ñàkk ndax isaan dafa war a ñàkk sonal na aaway bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum sama waa groupe maa leen ziar yéen ñëpp ñëw ci turam ak santam rawatina gan yi ma fekk ci porte bi gar gan yi daleen ak jàmm saxlan wa ahlan kuréel bàngoog kuréel bàngoog rek moo ci nekk fo ak ree sitante xalaat bokk yëpp moo ci nekk yur bi daal waaw comme ça ni ko président waxee rek noonu rek demee kon gan ñi daleen ak jàmm daleen ak jàmm saxlan wa axlan waaye mooy loolu rek kuréel baa ngi noonu. salaamaaleykum na ngeen def famille sénégalais maa leen di nuyu yéen di leen ziar waaw man la dama dama soog a dugg si groupe bi waaw chéri bi dafa neex macha allah man instant bi Marlo loolu laa yërëm dama ko yërëm billaahi Marlo jar na yërëm sax de billaahi jar na yërëm ndax fi ko soxna ba toog tee kuñ fa woon nga def ni Marlo waaye daal man Marietou la laa bëgg mu jéngu tuuti rek na jéngu tuuti woon soxna ba li mu mëne xam ne aaw du moromu ñaareel mukk sax ñaareel moom ci ginnaaw awa rek lay daw mareetu moo war a jéngu na war a jug ci kaw soxna Bator lépp jeex. billaay waa mareetu moom li nga wax moom dëgg la war na jug de war na jug mu xoolaat tamit Marlo kay billaay moom mareetu tamit dafa yërëm dafa yërëm Marlo waaw ak àlla tamit yërëm na Marlo billaahi Marlo si boppam <laughs> si boppam moo jaaxle dafa jaaxle viyam bi xam nga rek. asalaamaaleykum famille sénégalais maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar seen wàcc waaye maa ngi kontaan si li ma bokk si groupe maa ngi doog dugg na damay nuyoo ba kanam may doog a lire audio yi doog a commentaire vraiment kontaan na maa ngi nuyu ma fekk ñëpp macha allah alhamdulilah rabbi alamin jërëjëf ma sëriñ yi neex na mu neexee woon macha allah kay merci. asalaamaaleykum asalaamaaleykum soxna Aïssa maa ngi Mariama maa ngi lay ziare yan gàññil ci biir yëpp maa ngi ziare ñëpp nee affaire baa ngi ne moom non affaire neex sama. Ah, bi moom série bi moom neex na macha allah ñëpp muy wax ci série bi bi moom macha allah ñëpp muy ci wax ci série waa am benn problème man tamit dama soog a dugg si ci groupe bi famille sénégalais. na ngeen def may new jàmm waaw ah, man lay gën naa si kër gi naa daal si te ma dugal si groupe bi waaw ah, kontaan naa trop kontaan naa vraiment dañ ma ajouté si groupe bi. asalaamaaleykum la famille sénégalaise nuyu naa leen ziar leen si li ngeen nekk mbaa yéen a ngi si jàmm ziar naa leen di tuub bu baax su suba ba tey dugguma si kër gi ñu ngi siy tuub bu baax a baax di jégalu bu di nuyu gan yi ci kër gi di leen ziar bu baax baax di leen lalal tapis rouge daagu leen fu leen neexee ah macha allah kër gi moom amul jëkk a dugg amul mujj a dugg amul gan macha allah ku ñëw rek bokk waaw ku ñëw rek bokk macha allah kër neex na moom waaw ah, naan la famille sénégalaise la ñu wax jàmm rek ak salaam xamante miinante daal. maa ngi leen ziyaare bu baax naka seen doom bi baax yéen a si jàmm nuyu naa leen bu baax asalaamaaleykum nuyu moom tam di ko ziyaare di ko jox wàcc waayam kon doog groupe soxna Batoor ay man soxna Batoor man daal ku tudd soxna sax man dama lay mere waaw ku tudd soxna sax léegi dafay tax ma mere la ndig soxna Batoor ah ñaari lii ñu tudd seen bopp aw yaa ngi ñu dal seen kaw baax na daal waaye nag aw bu ñuy faral moom dafa yembare nag ah mëneet si bu fois moo yembare neexut a faral dafa war am activité ah tàng jiir weex xaj léegi tey sax soxna Batou respect ko macha macha allah séeréer bi moom amut nu mu waaw waaye maarloo daal moom ah am naa soxna Batou fu mu ko dugal moom métti waaye man de suma gis-gis bu gàtt ak suma xalaat bu gàtt. maa ngi yaakaar ne xale bu góor boobu bugg a biige yaakaar naa kër gi est-ce que du mujj ci moom mu jëndal ko gaay yi bés bu mu toxee si xale bu góor boobu ku bugg a biige noonu ah xam nga joxe woon na kay kay maaka joxe woon na biye maaka ah man daal suma yaakaar bu gàtt ak suma gis-gis bés bu toxee ci kooku yaakaar ne kooku dina jënd eede jeex na yërëm yal na yërëm torop di jigéen ji bon moom yal nañu ci yàlla musal mu yore la ni di la manipuler say biir mbokk say mbokk mënuluñ la mënuñ ci moom dara ah loolu yërmande weesu ko salaamaaleykum wa rahmatulah yéen waaye groupe bi maa leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ndokkeel rawatina ki nga xam ne nii moo ñu assisté si groupe bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax di am mbégte ci groupe bi eh, nu muy demee wax dëgg yàlla théâtre bi neex na am na solo ñaanal leen yàlla rek yàlla yàlla yokk leen te barkeel saare moo baat nag si barke Maolana Cheikh si barke Laama Seydi Ala sama sëriñ waaw man la Ibrahima Thiam fii si Gambia incha allah maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp nag di ndokkeel asalaamaaleykum groupe famille sénégalais ñu ngi leen di nuy di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm jànd ak tawféexi sëriñ Touba di nuyu ñëpp nag di siyaare ñëpp di siyaare ki ñu dugal si groupe bi koy siyaare di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal jàmm mu jox sax dàq di nuyu ñëpp nag mbooleem jullit bu ne si biir ñu ngi lay nuyu ak taalibe yi daal man la na koy gan laa si biir nag man dañ may doog a dugal waaye maa ngi siyaar ñëpp waa di dégg xoose yi am na solo